tabaski nga door a bàyyi wa kadhalika ni jumlatu sha'bana mboolem weeru baraxlu uxiza jàppeef na ko la dayhim fa ñoom ba tey nee na sopp nañu weeru baraxlu nga woor ko lépp lépp fekk na waxan nañ ca bisub fukkil baag juróomeel ne moom lañ ci gën a taamu wattafaqoo dëppoo nañu fi fadli ashura ci gënuk ashura adal lëzi ca ba nga xam ne yuddu xaa def na ko wooye bi taasu xaa ci taasu xaa nee na bisub fukkeel ci tam xarit muy ashura ak ba ko jiitu muy juróom-ñeenteel di taasu xaa ñaar ñëpp lañu sopp ku leen woor waaye nag maase nañ ci ne bisub fukkeel ba nga woor ko moo gën woor bisub juróom-ñeenteel ba soo mënee boole woor yaar yëpp nag moo gën moo tax mu ne li kaw ni ci ngirug nekkam ak sara di gën a bari min hu ci moom ajran ci ab yool fal tusbitoo na ngeen saxal sawmal jamihi woor mboole seen ak dëxra ci jëpp jamono woor bisub fukkeel ba daal moom moo ëpp tuyaaba kon nag boo naree woor kenn ci ñoom ñaar dong def ko fukkeel ba boo mu nee boole yaar yëpp nag mu gën wa asbatoo saxal nañu asiya ay yëf tuuf xal yooyu def na leen def fii ci yow ma ashura xaddaduha seen bu lim yemun fukk laal ñaar xalaamaa ci kaw li nga xam ne naqaloo toxal nañu ko bisu tam xarit te mooy bisu fukkeel ba ci tam xarit am na ay yëf yoo xam ne sopp nañ ku ko ca def te mu mat fukk ak ñaar saw mun koor mooy ba ci jëkk maanaam sopp nañu woor bisub fukkeel boobule ni nu ko weesoo woon léegi moom nag nee nañu moo ci sax ci sunna bu wér a wér yi ci des nag moom gaa yu baax yi ñoo koy tudd ci seeni téere te kat dañuy ay gaa yoo xam ne yàlla mi nga xam lu ko soob mu def ko ci ab jaamam da koo soob mu def ci ñoom xam-xam yi secret yoo xam ne yàlla rek xam na mu toll moo tax na ñu leen di roy ci def yu baax yooyu le salaatul ak julli julli gi moom boo jullee ñaar rakk rek baax na waaye nag man ngaa seet julli gi nga xam ne moom lañ aada woo julli foofa nga jullee noona silatul ak jokkuk bokk taamu nañu bis boobu nga toppatooñ say mbokk nemmiku leen jokk sa digganteeg ñoom waxuslul ak cangaay sopp nañu bis boobu nga sangu ca ni ñuy sangoo janaaba sadaqatul ak saraxe sopp nañu bis boobu nga saraxe ci ngir yàlla loo man taqlimu dhufrin ak lewi we sopp nañu bis boobu nga lewi say we kuxlun ak tusngalu sopp nañu bis boobu ku ci tusngalu iyaadatul maridi ak seeti aji tawat ku tawat nga seeti ko ngir yàlla ci bis boobu lu ñu taamu la zawru aalimin ak siyaari aji xam aji xam xam-xamul islaam di ko topp xam-xam ba ci jëfe taamu nañu bis boobu nga dem siyaare ko ca ngir yàlla wa masura sin ak raay bopp li yeti min ñel ab jirim saalimin bu di aji mucc ab jirim mooy gonek jullit goo xam ne baayam daa génn àdduna bu doon ku kàllafe moom su baayam génne àdduna itam nekkatul ab jirim ndax lam kàllafee tax bu fekkoon ne yaayam moo génn àdduna waaye baayam génnul àdduna it ba tey duñ ko tuddee jirim bis boobu nag nga raay ci boppub jirim lu ñu sopp la xiraatul ixlaas yi ak jàngal ixlaas alfan junni yoon wa kazalika nii tawsixuna sunu yaatal xalal xiyaali ci njaboot ga uxida jàppeef na ko bokk na ci fukki yeeg ñaar jàng qul huwallahu ahad junni yoon nga def ko ci bis boobu bi ci des nag mooy yaatal ca sang njaboot maanaam yokk xéewalu njaboot ga te gën koo neexal taamu gi ñu taamu nag ku wóor bëccëg bi tax na xéewal yi dañ koy def ca guddi ga nga xam ne bët seetee ca la ñuy woor wal xuslu cangaay la fii ci yow mu xaashora xii la waxees na ne yan fii dana dàq saqaman ak ràgg wax ne ne yow mu xaashora boo ci sangoo noonu ñu ko digle mel ni ñu sangoo janaaba dana tax yàlla musal la ci jàngoro musal la ci tawat wal iktihal tusngalu fii ci moom yadda faaxu dana jiñ alxama ngumba ga ba tey tusngalu ci bisu yow mu xaashora dana tax yàlla musal la ci gumba taw si xonaa sunu yaatal fii ci moom xal xiyaali ci njaboot ga yeesi dunaa dananu dolli ar risqa wërsëg bi idnil waali ci ndigalul yàlla mi kilifa wala ci nammeeluk yàlla mi kilifa ba tey nee na bis boobu boo ci yaatalee sa njaboot yokk xiiwal ga gën koo neexal dana tax yàlla yokk sa wërsëg ca at moomee su ma siyaamu topp koor nag intabihoo na ngeen yeewu lam yan xasir takkuwut fi xadamil ak li ñàkk lekk ga faqat dong fi maa ca la nga xam ne ontu bi rek xala meef na ko nee na koor nag baax na loolu waaye bul defe ne boo lekkul naanoo rek daal ngay woor déedéet am na secret bu nekk ci biir koor bu mata jàpp bu baax idi ngir rubba saa imin baraana aji woor maxal jamaaxati ànd mbooloo ma lay sa loxoo déet di ko ñeel fii ca koor ga siwal majaaxati dara xiif ba nee na baraana kuy woor ànd ak nit ñi mel ne mi ngi woor te fekk ne xiif ba rek la cay am waaye du ci am lenn njëriñ kon lan mooy dëgg dëggi koor nag fa sawmu dëgg dëggi koor an yasooma moo di bu wooree kullu xodrin bépp cër an kullima walis lépp loo xam ne yufdi dana féetale mbaa dana àggale fatan as jam li saxwin jëm ci njuumte kon dëgg dëggi koor mooy nga sàmm sa cër yépp daal bañ caa def dara loo xam ne ku ko def ñu wax ne njuumte la ñu wax ne gënut daal nga di ko moytu ci kaw loolu faltum sikoo na ngeen jàpp xan nadaret ni walis xool ilal xaraami jëm ci aj araam wal machi ak dox jëm ci lu araam wasami ak déglu ga laxoo ñeel ko maxal kalaami ànd ak wax ga wa kulli fikratin ak bépp xalaat radiyet bi aj ñaaw dañ koy firee buy aj ñaaw rek waaye dañ ci jublu bu ñàkk solo maanaam xalaat bu amul njariñ rek kama taraktumu naka ngeen bàyyee ak lan lekk wa shurban akuk naan xolima yooyu xameef na leen ñoom ñaar na ngeen téye seeni bët bu ngeen wooree bañ cee xool lu ngeen warta xool téye seeni tànk bañ caa dox lu ngeen ci warta dox téye seeni nopp bañ caa déglu lu ngeen ci warta déglu téye seen làmmeñ bañ caa wax lu ngeen ci warta wax seen xalaat sax na ngeen ko téye mu bañ a jëm ci lu amul njariñ bu ngeen sañ bu ñu sañoon saa yu nekk da ngay xalaat rek lu am njariñ te bañ a xalaat lu amul njariñ rawante nag lu ñaaw kon ni nga bàyyi lekk naan rek noonu ngay bàyyi yépp su boobaa nag bu daal nekk dëgg-dëggi koor wala tu kattiroo te bu leen baril as suxoor a xëdd wala futtoor ak dog waxta siyaamikum ci waxtu seen koor fa tux ramoo ba dee fi xañ leen ak ujjoora yool ya nee na waxtu ngeen di xëdd ak waxtu ngeen dog na ngeen def rek lu yem lu yem ja bañ ëppal xëdd ga mbaa dog ga ba seen biir fees ndax bu biir yi feesee rek moom sekkare bañ soxla woon ca koor du ca am mooy idda ngir kullu man képp koo xam ne mala a feesal na battana foo biiram taxaaman ci aw ñam wa ak sarate mu baril ashurba naan nga alayhi ci moom wal manaama ak nelaw ya fa innahu naka moom istawa yemoona maxal bahimati ànd ak bahima idd faatahoo ba nga xamee ne raw na ko wala nga ne idd ngir faatahoo raw na ko xayrun aw yiw kasirun wi aji bari wa tawaate mu al ko nee na day def ne boo xasee lekk ba sa biir fees naan ba sa biir fees faaw rek tëdd nelaw moo cay topp waaye xalaat ak jaamu yàlla moom daanaka doo ko man te nag lekk ba sa biir fees naan ba sa biir fees nga tëdd nelaw moom mbirum bahima rek la ku ko def daal na yem ak bahima te su boobaa koor gi wàcc na ko nii rek waaye secret ba ñu soxla woon ci koor mooy leer dugg xol bu rafet dugg xol bu teey bu woyof dugg day daal di xaw a jafe ci bu biir bi feesee ci lekk ak naan mu nelaw bu màndi boole ci daanaka yooyu du dugg moo tax wa baaduhum lenn ci ñoom yaakul dana lekk aklal baqari kem lekku naye waqta futóorihi ci waxtu dogoom wa waqta wa waqta saxari ak ci waxtu njël mooy waxtu xadd xataa yekkoona ba nekk batnuhu biiram ba faqilan di aji diis jiddan lool fasaarati mujj xalbuhu xolam mashxoolan di luñu soxlaal mooy di luñu gàllankoor an zikri rabbihi walis tudd boroomam ba muy fàttaliku boroom wa yaddax itam yu woote asiyaama koor wax woote mbir moom moom laa yax wi du làq fatil lan lu toll ne fatil fil xiyaam ci bis penc ma ñeen am na ñoo xam ne bu ñu wooree ba toll ci waxtu ndogu mbaa waxtu xëdd dañuy lekk-lekk mel ni aw nag ba mucc seen biir fees dell bu ko defee nag tëdd nelaw rek lañuy man waaye xalaat lu jëm ci seen boroom mbaa def genn jaamu yàlla te leen daal di jafe su ko defee ñu defee ne woor nañu nag fekk na dëgg la sax woor nañu ba koor ga wàcc na leen rek kenn di leen ci topp bàkkaar waaye nag secret ba ñu soxla woon ci koor moom duñ ko am ahadana yal nanu musal allahu yàlla minal xuróori ci ak waru wa kulli ma ak lépp loo xam ne yaduru ay lore fi duhóori ci jamono ya yal nanu yàlla musal ci lépp luy xeetu waru waru mooy di yëngatu ci lu baax di ca séentu tuyaa baag ngërëm ndekete yoo am na lu làqu ca biir lu ko yàq ba xañ la njariñ la ak tuyaa ba ja te yëgoo ko lool nag doomi aadama mucc ji jafe na yu bare bare bari yoo xam ne yu baax lañu ab jaam mën na ci yëngatu fekk na am na lu ko sikkal ca biir te moom yëgu ko yal nanu yàlla musal ci mboolem xeeti waru yooyule ak lépp luy lor ba faw faw tumali xaashura topp ñeel na xaashura ashiyaawun ay yëf turaa yu def na leen gis max soo satan ñu luñ jagleel bi xaa ci moom rawaaxa nett na leen man ka nga xam ne dara xam na nee na bisu tamxarit nag dafa am ay mbir yu bare bari yoo xam ne yàlla ci coobareem da ko caa xewale woon te bu ko sooboon mu xewale ko ci beneen bis bu bokkut ak boobu mbir yooyu nag boroom xam-xam yi nettali nañu ko moom it nag kon mu daal di koy nettali fii fa fii ci bis boobu taaba la jéggali woon rabbuna sunu boroom xala abi basharihi ci bàyyib mindeefam ya aadama te mooy aadama awwali nabiyin mi aj njëkk ab yonante sunu maam aadama mook soxnaam xawwa sunu boroom da leen a dëkkaloon ca àjjana ne leen àjjana jàngoog lu ngeen soxla rek mën ngeen a waaxu sàkk ba mu des nag garab sàngam gee garab gee moom bu leen ko jege ñu wëlbatiku nag lekk ca garab googee kon loolu xëtt ndigal la ba loolaa sabab yàlla wàcce leen ci suuf ci bisub tam xarit nag la leen suñ boroom jéggal lekk gañ lekk ca garab googee mu leen aaye woon wastawat te yemoo asafina tugaal ga almaaluma tuga di guñ xam fii ci yow ma ashura alal joodi yi ca kaw doj wa mustaqimatan mbir mu muy aji jub mbaa mbir mu muy aji temm nooxun alayhi salaam ba ko sunu boroom liggéeyloo gaal ga ba mu ko liggéeyee ba àggal sunu boroom dane ko lenn lu nekk tànn ci aw jiwu def ci biir gaal gi ñi nga xam ne itam ñoo wuy si sa woote bi gëm yàlla bariwuñu sax waaye dugal leen ñoom ñépp sawa ko itam képp koo ci xam ne ku gëm la dugal ko ci biir nooxun daldi def noone yàlla daldi digal asamaan si mu wàcce am ndoxam digal suuf si mu génne am ndoxam yaari ndox ya tase lépp lépp lab ba mu des gaal googe nga xam ne mooy gaal ga nooxu nekk ak ñamu ca nekkalan bis ba gaal gay teer nag ci kaw doj wa bañu mën a wàcc bisub tam xarit la woon wa fiihi nekk na ci moom falqu baxrihi xaru géejam ga li Muusa ñeel Muusa Muusa alayhi salaam ba ko fen xaw nay dab ba ko aw nitam seeni ne ko ah daañu jot de mu ne déedéet suñu boroom du ma wàcc dana ma wax naay def suñu boroom ne ko jël yat bi dóor ko ci géej gi naka mu ko dóor ci géej gi géej gi xar def fukki yoon ak ñaar fekk ñoom fukki famille ñaar lañu famille bu nekk am yoonu bopp mu aw ci kaw ndox mi ci géej gi mel ne ku jaar ci doj naka firxaw na aksi nag fekk moom Moussa yàlla may na ko mu jàll mook ay nitam ba noppi nag firxaw na bëgg a jàll moom it aw fa Moussa awoon ak nitam yàlla bàyyi ba firxaw na dugg nag mook ay nitam ñëpp rek géej gi defaat ndox na mu defee woon ndox ñoom ñëpp ñu lab xam ne kon bis boobu ci la yàlla musale Moussa ak ay nitam xaral ko géej ga ñu jàll waaye ca la labale Firxawn dana ko wax léegi ci woyoo ci topp wa hakasaani ki ni wulida jureef na fii ci moom xiisa xiisa ba tey nee na xiisa alayhi salaam ci yow mu xaashura la juddu wa fii nekk na ci moom igraqun ak labal li Firxawn na ñeel Firxawn na mooy li doon wax léegi ba Moussa jàllee ak nitam rek la Firxawn na ñëw bëgg a jàll mook ay nitam far yàlla digal géej gi mu def na mu defoon ñoom ñëpp muy firxaw na ak gaayam ñu daal di bokk lab kon loolu ci yow mu xaashoraal amoon mooy itam wa fii te ci yow mu xaashora xaraja la génne woon yunusu yunus an nabihu mi aj yëkkati ko daraja min fóotihi bàyyikoo ci jënam wa yunusu alayhi salaam ba ko yàlla yebalee ci aw nitam da leen a woo ñu bañ mu daal di mer bàyyi leen dem dugg ci gaal te amu ca ndigal ba ñu nekkee ci biir gaal ga nag mel ne gaal gi daa nara suux ñu ne ñàkkul day ab jaam buy daw ab sangam bu ci nekk boo xam ne bu nu ko tegoy bant daanu ko xam bu ko defee nu génne ko ndax moo tax gaal gi nara suux naka ñu tegoo bant ya bant ba dal ca yunus alayhi salaam ñu daldi koy génne sànni ko ca ndox ma yàlla wax aw jën ne ko wann ko maanaam wannal yunus waaye nag defuma ko muy sag lekk maanaam bu mu rees ci sa biir ci bisub tam xarit nag la yàlla génne woon yunusa ca jën woowee su ma taaba topp jégal xale yi ci moom rabbuna sunu boroom alxalim bay aji lewet fii ci moom ba tey ca bis boobee la ko yàlla jéggal loolee mu def te mooy jekki-jekki génn bàyyi aw nitam te amu ca ndigal kazaliki nii xuruju yusufa génnu yusufa alkarimi mi aji tedd min jubbihi bàyyikoo ca kàmbam ga yusuf ay doomi baayam dañ ko añaane woon ndax na ko baayam bëgge woon dafa ëpp lool ñu fexe nag ba baayam boole ko ñoom ñu dem ca àll ba bañ demee nag ñu toroxal ko naran ko rey sax gannaaw ba ñu ne nañ ko sànni ca kàmb gee naka ñu ko sànni ci kàmb ga nag am ñu fa jaaran ci tukki ne nañu root ndox ca kàmb ga naka ñu sànni seen baag rek yuusufa daldi jàpp ca baag ba génn ci biti bis ba yuusufa génnee ci kàmb ga nag ba tey bisub tam xarit la woon wa fi hita ci moom sàllama la musale moom yàlla aydan ba tey xaliilahu xaritam ba min naarihi ci sawaraam wa fa salima te mu mucc ibrahim ba mu dammutee xërëm ya nga xam ne moom la ay nitam doon jaamu dañu ko mere daal di koy taalal aw sawara woo xam ne daa yanji yanji ba nga xam ne picc yi naaw di ko tiim sax dañu cay daanu ñu jël ko sànni ko ca waaye suñ borom ne sawara wa da ngay sedd sedd bu yem ci ibrahim sawara wa daal di mel noona sedd sedd bu yem ca ibrahim nga xam ne ibrahim dara laalu ko ca sawara wa ci coobare yàlla lii nag ba tey ci bisub tam xarit la amee woon wa fiihi nekk na ci bis boobu rafaxu dilxulaa yëkkati borom kawe ga idrisa te moo di idris yonent yàlla idris sunu borom da koo yëkkati am na ñu ne da koo yëkkati yóbbu ko ci benn ci asamaan yi te ma nga cay dund ba tey am ba tey ñu wax leneen waaye suñ borom moo ne wa rafa'naahu makaanan aliyan mu ne nag ci bisub tamxarit la yàlla yëkkatee woon idris moomule wa rafu ruuxi yi ak yëkkati ruuxam nga ak taq yi kay aj ragal yàlla xiisa te moo di xiisa xiisa dañ koy wax ruuxullahi fekk na ruu yëpp sax ruu yi yàlla waaye nag moom ñàkkam ñàkk am baay nga xam yàlla awale ruuxam ci yaayam rek loolaa tax ñu koy wax ruuxullah moom nag yahood yi dañ ko doon fexeel bëgg koo rey yàlla tëral fa ku mel ne xiisaa ñu rey kooka defe ne xiisaa lañu rey ci bisub tam xarit nag la yàlla yëkkate woon xiisaa mii wa fii ci bis boobu aydan ba tey taaba la jéggale rabbuna sunu boroom xalaa daawuda ci daawuda xaafiran mbir mu muy aji jéggal la ñeel ko maa la nga xam ne faa la defoon na ko daawuda ak yonante bu màgg la la mu defan nag ba di ko jooy jooy yu metti metti ba yàlla jégal ko ko dañ caa wuute ñenn ñi nee nañu daa jekkoon jekk rek ne jàkk xool asamaan te jiitalut yéene te nit ku baax rawante nag yonante sañu te jekki-jekki songu def lu dagan te àndu tëg yéene nee nañu loola moo doon bakkaar ba muy loolu muy beneen bakkaar lu mu ci mën doon rek ci bisub tam xarit la ko yàlla jéggale woon alayhim yàlla na dolli nekk ci ñoom assalaatu dolli teral wasalaamu ak dolli wóolu yonent yim tudd yépp rek la ñaanal yàlla dolli leen teraanga ak jàmm woo fii te ci bis boobu yukk saa la defi wodd la defi sàng baytuhoo néegam ba alxaraamu ba di buñ ormaal ba tey nee na ci bisub tam xarit lañuy sàng kaaba gi koddaay loolu mën naa am muy koddaay loo xam ne dañ ko daan wodd kaaba gi ci bisub yow mu xaasora ci ay jamono waaye bu dee léegi daal moom nguurug waa màkka dañoo sàkk ñu amu xarala ñoo xam ne ñoy fété wo wutal kaaba gi ko daylu baaxa baax tayit dañ cey def alal ju bare bari ñu koy tuddu ci radio bi ñu koy dégg tayit danañu faral di wax bis bañ koy solal koddaay loolu le kon bu dee koddaayal zahir daal mel na ne kon defatuñ ko ci bisub yow mu xaashora mën na am nag muy leneen koddaayul baatin lu ko tax di wax faslun li ab dog la fi zakaati ci asaka amma zakaat daal asaka fal faraidu farataya laha ñel ko toxat du def na leen lim arbaxan mbir mu ñuy ñeent kuduha na ngeen leen jàpp kullaha képp ci ñoom nee na asaka am na yeenti farata nga jàpp nag ñu waxal la ko benn benn niyetuna mooy sunu yéene mooy la ngay joxe da nga yéene muy sa asaka boo joxe woon ba àggal gannaaw ba doone ah man kat war na maa joxe asaka kon lee ma joxe léegi naa ko ci féetale xam ni ma ngay joxe booba sam xel nekkutoon ci asaka waaye nag bu fekkee àgg nga ci rek bi nga koy joxe jàpp kaa joxe asaka ba ku la bettu ne la waaw li nga koy jox nag nga ne asaka laa koy jox rek mu daal di doy tamaamu xawlin ak matu at bu dee jurub kër wala muy wuru sa xaalis bala ca asaka war at ma dafa mat ci sag moomeel bu wér a wér nga xam ne kon sañoo koo génne te at ma matut ndax lay farata ja mooy bala nga koo génne at ma mat lépp luy xeetu mbay nag moom dañ koy takk rek ci bu ñoree xoom rek asaka dal cay war wa tamaamu nisaabiha ak matuk nisaabam ja nisaab mooy tolluwaay ba nga xam ne boo ci àggee asaka door caa war leen lu nekk nag daa am nisaab ki bu dee ci mbay juróom-benn bari ko bu dee ci xaalis ñaari téeméer yi nga xam ne mooy ñaari téeméer dërëm yoon yooyu waxoon na ne buñ ko seetloo ci ay ngaraam dëgg-dëgg day tolloog cinq cent quatre-vingt-quinze ngaraam buñ xamee nag benn ngaraam bu ne nu mu toll ci CFA rek nit buñ ne biñ ko mujjee laaj deux cent quatre-vingts la kon deux cent quatre-vingts mooy benn ngaraam boo ko multiplier cinq cent quatre-vingt-quinze mu daal lay jox cent soixante-six mille six cent ko defee loolu kon yooyu jamono mooy nekk nisaa bi xaalis wurus moom mi ngi toll ci quatre-vingt-cinq ngaraam loolu mooy nisaabam du tee nag bu dee ci njàngal ni koy tuddee ñaar fukki dinaar waaye nag buñ nee benn dinaar bu ne ñeenti ngaraam la yu tegal kaaru ngaraam benn dinaar bu ne dafa nekk ñeenti ngaraam yu tegal kaaru ngaraam loolu nag boo ko def ba mu ñaar fukki yoon mu jox la quatre vingt cinq grammes kon quatre vingt cinq grammes ci wurus mooy nisaa bi wurus tolluwaayu asaka ja nag moom bu dee ci wurus mbaa xaalis yomb naa seet gannaaw bu matee nisaab moom boo ko defee fukki xaaj benn xaaj ba nga dellu ko xaajaat ñeenti xaaj ñeenti xaaj yooyee boo ci teggi rek mooy asaka ja mel ni tey boo amoon million danga koy def fukki xaaj bu ko defee xaaj bu nekk nekk ñaar fukki junni ñaar fukki junni nga defaat ko ñeenti xaaj xaaj bu doon juróomi junni xam ne kon juróomi junni mooy asakay million loo bari la bari la alal nag wurus muy xaalis moom noonu rek nga koy génnee nga xam ne robuxul xushuri kaaru fukkeel ba mooy doon asaka ja bu dee ci mbay su xësee mat nisaab te nga xam ne asamaan si mooy taw rek ngay bay la nga bay boo ko defee fukki xaaj benn xaaj bi ngay joxe asaka ni ki boo amoon benn ton muy fukki barigo benn barigo ngay joxe asaka su fekkee nag yaa koy suuxatal sa bopp mbaa machine ba koy suuxat danga daa am loo cay fay kon boo ko defee fukki xaaj dangay xaajaat benn ba ñaari xaaj te juróom-ñeenti yaag xaaj joxe nag benn xaaj boobee asaka mel ne bu fekkoon ne am nga fukki barigo te yaa ko doon suuxat mbaa machine ko doon suuxat ngay fay kon benn bari ko ba boo ko xaajee muy ñaari cinquante benn cinquante kilo ba ngay joxe muy sa asaka bu dee ci xeetu jur nag moom daa bari ay teqale lool lool waaye teqal nañ ko bu baax a baax ci yeneen téere yi niki al risala ak al hisiya ak mboolem téere yi nga xam ne andi nañu ko fa xadamu naqliha ak ñàkk toxalam ak tamaamu moo di mat ga bokk na ci faratay asaka alal ja nga xam te lañu génne asaka ja fa mu nekk lañuy seet bu fekkee ña ko yelloon ña nga fa mais am na fa ñu ko yelloo kon nañ ko joxe foofu waaye buñ ko fa toxalee di yóbbu feneen waaye lañu bañ ci toxal ba nag rek mooy mu weesu soixante-douze kilomètres ya ko wër li ñuy wax doxu wàññi am ñu koy tolloole soixante-douze kilomètres am ñu koy tolloole quatre-vingt-neuf kilomètres yi tegal sax tolloole yu wute la wër moom ci lim boobu mën nga ko faa yóbbu waaye lu ko wees